yéen ñi di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës ci kolos bi ngir man di jot suñuy notification te bu leen fàttee zem tey partager suñuy video ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen uh, ñaanal jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal tey nag dama ñëwoon pour waxtaan ak yéen sama diggante ak Ousmane Sonko waxtaan bi nag ci li jot a xew actuellement la la war a doon parce que dañu nekk ci jamono yi leeral kon foog ma leeral usmaan sonk yow laay waxal yaa ñëw Sweet Beauté tooñ ma fa tooñati ma Ousmane sonk xale bi nga doon jox ay ord di ko dóor di ko violer jeex na la woon woni na te yow xam nga ci dara te démb xam nga ni xam nga ci dara. yow Ousmane Sonko yaa ma tooñ tooñaat ma ma yóbbu la ma porte la plainte ba ma lay porte plainte nag su ma xamoon ne dégâts yi am Sénégal dina fi am kon duma la porter plainte mais comme yegsi nañ fii. tey laa gën a soxla ñu leeral suñu mbir tey laa gën a soxla procès tey laa gën a soxla suñu diggante ma ak yow àdduna yëpp xam yow yaay kan yow Ousmane Sonko lii yëpp leebaloon nga ma ko biir Sweet Beauté waxoon nga ma ne nag lii yëpp bés bu ma ko waxee nit kenn du ma gëm et que di nga taal réew mi te di nga ma utiliser ba am li nga bëgg waaye dama bëggoon nga xam ne la woon woon ne nag comme ni ma la ko waxee sànq la woon xale bi nga doon tàpp di ko def loolu ne pour sa propre plaisir. xale boobu nga xamoon ne da nga waxoon ne di nga ko utiliser pour am li nga bëgg dama bëggoon nga xam ne xale boobu màgg na te yow xam nga ko démb nag dégg naa ngay wax ne dama yaru sama yaru ñëpp a ko xam xanaa say partisan ñoo ko xamul te say partisan buñ la buñ la respecté woon yow duñ ma traité du caga kon day wane ne yow caga yi ngay fréquenté Ousmane Sonko deux ans ngi nii may toog di xaar ñaari atumaam yàlla di xaar benn bés boo xamante ne xaw ma woon sax ndax dina ñëw ndax yéen ni ngeen nekkee woon si dëkk bi chaque jour nga def point de presse sama diggante ak yow chaque jour nga def point de presse taxar ay góor deux ans ñaari atumaam yàlla ma toog ci kaso di la xaar ñaari atumaam yàlla la yoo xamante ne yaa ngi wër di tuumaal ay gor Ousmane Sonko dama bëgg nga xam ne góor yooyu noonu ngay tuumaal yow yaa leen xam man xaw ma leen man yow laa xam ndax yaa doon ñëw Sweet Beauté Ousmane Sonko dama bëggoon te Ousmane sax yow Ousmane Sonko danga ma bett démb yàkkamti woon nga pare ba dem ñibbi defaat sa mënin comme ni nga koy defee point de presse te ba nga jàkkaarloo ak man yaa ngi doon mel ne xaru yar juste bi moo la doon wax waxal ci kaw ba nga li nga tontu sax xaw ma ko li nga wax foofu ba léegi xaw ma ko ndax dànk nga doon man ndax man démb maa ngi dégg ngay wax ci sa live ni tontu nga question ni nga ko li nga ko waroon tontu mais Ousmane loolu amul tontu benn question. te démb dama participer ci confrontation entre maître El Hadj Diouf ak Ousmane sonk la moo tax bëggoo tontu bëggoo wax ci man li ngay def nii da ngay sonal sa bopp rek mais yàgg yàgg nañ daje wiri wiri bi yàgg yàgg nañ daje. procureur tontu procureur wax na ak yow te nga ne doo ko tontu juge bi wax na la nga wax juge bi sax man mii dégguma ko te ma yaa ngi doon mel ni xaru yar mais te jaarikan wax na ak yow tontu woo ko. maître El Hadj bi wax na ak yow tontu woo ko léegi nga lan nga bëggoon lan kon lan nga doon ñëwee ofet lan nga doon ñëwee lan moo la indi woon pour qu'on def confrontation ak maître El Hadj mënoon nga def point de presse comme ni nga koy defee rek ne maître El Hadj laay wuy ji man au moins man dinaa toog kër ga Ousmane Sonko sama diggante ak samay mbokk xajoo ci sama diggante ak sama papa xajoo ci sama yaay gaañ na demee sama papa mot na instant bi taxaw na taxaw bi yëpp. Ousmane Sonko booy wut baay bu irresponsable mooy yow booy wut jëkkër ju irresponsable mooy yow man samay mbokk mënoo leen xaaj te samay mbokk mënoo maa jaxaseeg ñoom sama papa booy wut papa bu responsable moom ngay booy wut pa baay bu bëgg njabootam moom la sama yaay gaañu na de mais juwee ma ko benn yoon ndax moom sama baay nag wowaguñu ko ndax dafa yàqataan doomu jàmbur sama baay nag taalagu fi réew ndax dafa toog def lu ko neex ba pare di naan ñëw leen ñëw leen yéen ma dañ ma xaw ma lan sama baay aussi bàyyul njabootam ay xaaju guddi jóg di fekkee ay njabootu jàmbur di leen yàqataan sama baay saa gu fi benn kilifa diina sama baay dafa gu benn affaire boo xamante dañ ko xeefe te yàqataana gu fi benn xale bu ndaw Ousmane sonk nee naa la sama papa moo la gën te say njaboot say histoire dinañ ko jàng say set setaat dinañ ko jàng ndax dinañ ma dinañ xam ne sa seen seen baay wala seen maam moo doon yàqataan xale bu ndaw ba mu mu profité si loolu taal di taal réew mi koy wut bu ku irresponsable bu yegsee si yow mun na taxaw yow irresponsable bi ngay wax ci samay famille ci yow la njëkkee ak say famille su tenais nag pour wax ñi nii j'appelle à un procès public te maa ngi koy ñaan koo xam ne mën nga koo doxee waxee ko procès public laa soxla fa ma nekkoon tey laa fa gën a taxaw la taxoon ma porté la plainte tey laa si gën a taxaw pour mën ak yow nañ jàkk ndax xam naa ne yàgg yàgg dinañ tase ma ak yow nekkatul kuy toog wax wala kiy toog bañ wax parce que damay bañ ku ma saag tey laa gën a toog pour ñu dem procès tey laa ko gën a bëgg pour ñu dem procès ma ak yow yàlla na yàlla defal jàmm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal. dina di ñaan yàlla yàlla may ñu tal ak fekkee ba ñu dem procès ak jàmm dëgg bi feeñ ndax soxla nañ ko ñun ñëpp sénégalais soxla nañ ko man mii soxla naa ko pour reprendre sama laaj